asalaamaaleykum mbokki xarit ñi seetaan suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV tey ñu ngi daral kenn ci ay kangam kàngamu APR rawatina rek bànqaas bobu ñuy wax convergence des jeunes républicains bi nga xamante moy mooy euh, ki nga xam rek tay mom la togal fi ci émission bi mom moy Hassan Mbaye Hassan dañ lay bay rek nuyu ak mbokki xarit ñi seetaan ci émission homme politique. euh, euh Omar ma ngi lay nuyu di nuyu wa Thiès Info yépp ak ñi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan fii ci Thiès TV ak Thiès Info. mais aussi di profité ci occasion bi di jaale umma islamique bi ak waa Thiès yëpp euh, Pa Aziz Ndiéguène bi nga xam ni famille Ndiéguène ku tudd Thiès tudd leen ak ki ñu ñàkk démb muy sunu maamu bopp muy Pa xalifa Gaye yàlla xaare leen àjjana ci àjjana yi gën a kawe te tax ñu ci seen barke alors Assane bu ñuy wax rek tey li nga xamante ne moom mooy situation politique bu ñu xoolee euh, gis nañu rek li nga xamante ne mooy APR euh, yéen a ngi yëglu fu ngeen toll mais tamit opposition bi demuñu euh, bàyyi leen ginnaaw ndaxte gis nañu sax enseignants yi au niveau national daal di amal marche bi gën a rëy bi gën a mag fii ci biir Thiès li ni mel lan nga ciy àddu. bon loolu day wane ni réew mi mu ngi dox ndax opposition mu ngi def rôle am pouvoir mu ngi def rôle am doon regretter rek mooy nit bëgg a ñu ni ko doo marche su boobaa ñun ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci M23 doon xeex yooyu dañuy dañuy dañuy am gàcce mais heureusement que le président mu ngi autoriser marche yi nga xam ni am na solo yëpp ñu koy marche mais ñiy marche aussi gis nañ ñu am attitude responsable aussi ñu ngi leen di féliciter di ñaan yàlla rek ñoom li ñu jublu ci marche bi mooy réew mi dox te président mu ngi ci yoon bi j'espère que loolu du am problème loolu moom amul problème par rapport nag ak euh, doxalinu parti APR Thiès sa depuis un certain temps gis nañ que ni yëngu na parce que mbir tamit su su tëwee ndox da nga koy da koy yëngal te gis nañu que ni depuis bi Ibou Diouf defee sorti ba tey gis nañ nit ñi nag yeewuwaat nañu dellu ci terrain bi pour que li ñuy wax ni kii mooy coordonné wala kii du coordonné ku ci ne wàccaan nga ci base bi jéem a liggéey te loolu rek lañ ci jublu woon yëngal leen pour ñu wàccaat ci à la base liggéeyal président. kon li ñu mel ab stratégie stratégie là mais aussi euh, joxañ la parce que ñun objectif qui est ci bëggoon atteindre nañ à 80% parce que nous nañ que ni responsable d'ici peu de temps nous ñëpp dinañ wacc sur le terrain politique yëngalaat base bi occuper wa terrain bi ce lolu euh, daf ci am solo mais position bi ci Ibou position position bobu au nom de la Cogère, Thiès Ouest moom lañ ci am ñun aussi en tant que responsable parce que coordonner, mën nga ëpp ñëpp alal te doo coordonner, coordonné mën nga ëpp ñëpp njariñ te mënoo coordonné mën nga am base politique ëpp base politique Thiès te doo mën Coordonner coordonner, une commune ça ne veut pas dire y'a jiite nit ñi non non ki mën coordonner, coordonné mooy y xam dafa am ouverture jote fa ñuy fa ñuy nasee ak fa ñuy noccee kooku moo mën a coordonné dina jiital ñoo xam ni sax parce que dina jiital train bopp train li muy diis diis di dem bopp bi rek la yanu mais am na wagon yu am njariñ yoo am daa def keccax yii def yàpp yii def marchandise mais su bopp train bi su train bi taxawee nit ñi du daw ci bopp ba de wagon ya def marchandise ba la ñu soxla kon bopp bi moom day day tiire rek day tiire rek mais que que am na ku ëpp bopp bi njariñ wagon bu ëpp bopp bi njariñ nekk ci biir moom moo tax sax bopp bi daw parce que amaana su ca marchandise nekkul woon bopp bi du daw kon diw mooy coordonné c'est pas important ki mën a coordonné mooy suñu toogee nii ñun kat dañoo manqué lii commune bi manqué na lii fii tali waroon na fee dem ñii amuñu emploi ñii dañ leen a war a kooku dans les vingt quatre heures dafa war a kii coordonné dafa war a mën a jot Macky Sall secretaire général du parti kooku dafa war a bokk secrétariat exécutif suñ nee lii lañ fi tënkee tey su ñëwaatee ci weekend bi su dajalee kàngam yi muy coordonné di leen kat secrétariat secrétariat exécutif lii moo fa génn ak lii ak lii lii la ñu d'accord pour ñu doxalee ko parti bi responsable bu ne nag dem ci sa base liggéey loolu dong la day day jël di yóbbu di jël di indi à la base loolu mooy coordonnateur mais du yaa jiite diw yaa jiite diw yaa moom diw yaa moom diw loolu daf fi amoon ci campagne euh, législative pour vous dire biñ ne monsieur Siré Dia directeur général moom mooy euh, kiiw département tête de liste mais taxul Augustin ba tey moom mooy coordonnateur départemental de l' alliance pour la république est ce que Siré Dia dem na Tassette demu fa demul Tiwaawa demul demul Cenaba demul Xombal demul fenn ci département bi ci commune bi la desoon di liggéey est-ce que tax na mu jiite kenn ci campagne bi même les responsables de la commune ku ci ne da demoon di def sa campagne ci sa base te te alors que moom moo doon tête de bi kon suñ nee diw mooy coordonné c'est c'est tout juste pour mu tirer rek ñu avancer. alors ci beneen wàll bi am na ñuy wax ni <coughs> ñi jóg ñëpp di agité wu di wax ci média yi dañuy euh, bëgg rek ñu reconduire leen seen i emploi intérêt moo tax ñu jóg. ak rek ki nga xamante ne mooy Siré Dia taxawaay bi nga xam ne am na ko ci biir dëkk bi kenn du ko natable parce que ñoom nee ñu wër na euh, Thiès wërngal këpp ni Siré mooy ki fi mën mooy ki fi ne. xam nga ku ku taxaw ñàkk xam-xam weesuwul nga bokk ci parti naan diw dafay déstabiliser Siré ja Siré Dia li muy def Macky Sall la koy defal Alliance pour la République la koy defal kon dañ koy encourager ci yoon boobu. di ko wax li mu def nii na ko gën a dolli bu mu wàcc yoon wi loolu li muy def nii moo baax créer emploi jàppale nit ñi social waaye nag mënta coordonner loolu loolu loolu la Ibou wax ci commune am ci ci communication am mais ku wax ku ñëw naan da nga diw day déstabiliser Siraja mooy toog ci branche di ko gor mhm. parce que jàmbaar la kàngam la ci biir Thiès kenn mënatul wax cees ci politique gu Thiès fii ba àdduna di fay te doo tudd Siré Dia mais nag Abdou Mbow moo gën a ubbeeku par rapport ak les autres responsables Abdou Mbow moo fekkee fa ñuy nas ak fa ñuy noccee Abdou Mbow moo mën a jël téléphone am woo président léegi ni ko lii ak lii ak lii moom la Thiès di réclamer mu faju te gis nañ que ni li fi jot a am ci ay événement président suy yónnee dans la commune Abdou moom moom moom mooy ñëw woote permanence départementale ñëpp dajaloo ñu dem su dee ay njaal ñu dem su dee ay xew jaam ñu dem su dee ay jàng ñu dem te sensibilité yëpp ñooy wuy si kon déjà moom mu ngi coordonné sax te waxuñu ko yaay coordonné. Mm-hmm. alors ci beneen wàll wi gis nañu seen benn naataango euh, def moom it ab déclaration di xam le ni <coughs> ki nga xam ne mooy Abdou Mbow ñett ñi tekk ko topp euh, amul doole amul base amul dara fii dëkk bi euh, ñi fi nekk ñëpp xam nañ leen daal di kii ci yenn responsable léegi la nga ciy àddu. non Abdou moom li nit di ndamoo responsable di ko ndamoo ci baasam moom yàlla suturaal na ko ba gañe na commune am gañe na centre de vote yi nekk ci commune am yeneen responsable yi nga xam ni ku mel ni Siré Dia gañe na ay centre am docteur gañe na ay centre am yàlla na yokk ñiy wax nag man duma leen tontu parce que duma seen moroom ci politique parce que lii man maa ko sos APR Thiès dama bokk ci fukk ñi ko sos kon duma taxaw ci diko ko su nit ñëwé nak ba tabbi ci ku ne ñëw ak sa jikko dañ dañ lay gérer nonu rek mais man awma jot nag di tontu ay ay ay ay ay ay xalé parce que yorna jimmi xalé mais mag la ci parti bi nak ta mag day def yofi man alors am ngeen benen bankas euh, ndaw bi wax dafa wax ci turu COSER am ngeen benen bankas bu tuddu euh, printemps républicain li ni mel liko taxone job ak tay li nga xamne rek moy kàddu yi nga xamne mu ngi ci jip euh, li ni mel yow en tant que kangam ci parti bi comme ne nga yow kangam nga kilifa nga ci parti bi lan nga ci àddu. loolu ñi ko waroon a régler ci printemps ñoom régler nañ ko ñoom su ñu waree wax dinañu génn wax mais man habilité wu pour wax ci turu printemps républicain bien vrai que je membre je suis initiateur foofu rek laa ci mën a yem.

léegi nag dafa am mouvement yu am am am mbooloo te amuñu alal am ñu am alal amuñu mbooloo suñu objectif nag mooy dajale ñëpp ñu def synergie des force pour une deuxième mandat yi président de la république mais aussi pour le développement de Thiès depuis presque pendant vingt jours ñu ngi ciy dox ak benn équipe yàlla mu ngi ñu ciy defal sutura dina sotti ak jàmm incha allah te loolu kenn mënu koo yàq. mais est-ce que vous ngi jongo euh, Augustin en tant que coordinateur départemental ak yeneen ñi nga xam rek ay kilifa ci yu di presque la majorité des responsables ñu ñuy encouragé te gis que fan parti depuis presque pendant deux mois dinañ dinañ ñu téléphone ñu dina xew dina xew disposition ànd defandoo ko loolu ñu ngi koy def ak le ministre des forces armées ñu ngi koy def ak Abdou Mbow ñu ngi koy def ak docteur Ndiaye ñu ngi koy def ak ñëpp. Mm-hmm. waaw alors ci benen walu wi gis nañu ne li nga xamné mo taxone Macky Sall jël réew mi mo doon àll bi euh, tay gis nañu ki nga xamné moy Idrissa Seck di président bu parti réew mi tay mu ngi ci biir euh, région yi mu ngi ci àll bi tey dafa melni ñu ngi koy jox loxo li ni mel yeen lan ngeen ci addu ak sen teg tekkaaral bi nga xamné ne ñu bëri ci yeen ñu ngi leen koy euh, reprocher tekk tekkaaral sax amul Idy dafa nekk ci rôle moom ci jamonoy wax la nekk ñun ñu nekk ci jamonoy jëf temps de l'action Idrissa nag su dee jullit gi muy woote ci moom dëgg la ak gëm yàlla gi mooy fépp fu mu jaar wax ni Macky Sall lii manqué na lii manqué na mais na am ngoru wax ni Macky Sall it def na fi lii def na fi lii Tamba gi mu démarré tournée am fan yi Tamba lu ko rey semaine de fer Idrissa Seck moo tëj semaine de fer tëj mbay Diouf jël semaine de fer ni da koy jënd ñu bañ moo ko daaneel kon li da li rey Tamba ba ba Tamba tey jii addunay camion di fa fees Idrissa Seck ci la bokk benn ñaar moom li tax tournée yi gaaw fu mu fu mu jaar jàll mais tali ya muy jaar en euh, en 2012 tali yooyu baaxul woon te mënal nañ ko cee limal yu bëri ñun dañoo bëgg su ñëwee su defee tournée ba pare mu ñëw Thiès def bilan positif de ces tournées ak bilan négatif de ces tournées benn Tamba mandat douane Macky Sall moo ko defar mandat douane Vélingara Macky Sall moo ko defar Vélingara Diaobé Macky Sall la ko defar Vélingara Kolda yooyu yëpp ay tali lañ ko def yu bees tàq nit mën faa daw deux cent kilomètres à l'heure pont Abdoul Diallo ñun ñoko rénover défarat ko ta jaar na fa so démé ay route lañ fa def ñoro Kër ñoko défar té limu gëna échec échec ci gouvernement de 2000 à 2004 limu échec Macky Sall ko réussir parce que taxaw na de 2000 à 2004 bëgg défar pont ci fleuve gambi mu Macky en quatre ans tay jii pont bi c'est une réalité il est en cours de construction. bokkut ak pont wu Foundiougne bi nga xam ni il est en cours de construction Fouta il à Morphil pont yooyu yëpp defar nañ ko mais yemuñu ci pont mais dañoo defar euh, port bu Foundiougne muy port bu fonctionnel yemuñu ci loolu Casamance ga mu jëm amuñu woon bato bu leen yóbbu indil nañ leen ñaari bato yu bees rénover hôpital bi jàmm am Casamance jàmm ju wér sax am fa kon Idrissa suy ñibbisi na defaale bilan positif bu Macky Sall bokkut nag les nombreux forages yi yi nga xam ni moom moo am xam nga Idy dafa taayal fi mu toll tëli bu ñuul bi rek la jël mais su duggee ci àll bi ne na na dugg ci àll bi àll bi amatul jafe-jafe de. maanaam fu mu dem fu mu dem dina du daw ci gànnus ay piste rurale yi fi Macky Sall def ci lay daw su demee fu portable am déchargé dina am fu mu ko chargé ndax électrification rurale. maa koy xamal ni yow Idrissa Seck dugal bul yem sax ci kaw tali bi àll bi foo dugg amatul ganuus ñun ay piste rurale de centaines de kilomètres la ñu def ñun caaxaanuñu injustice sociale bi fi Macky Sall fekk nga xam ni dañ doon privilégier les communes bàyyi àll bi moom dafa ñëw ni man àll bi laa privilégié communes yi dañ leen di mottalil ñu dem ndax àll bi amuñu hôpital tey foo dem ay charge femme ñu nga fa loolu nak président moko def def nañ ay recrutement ci sage-femme ay ambulance té ñom bu ñëk lu ñuy jënd auto pour ñom kessé mais gis ngeen jamono yee wacc waccé nañ ci plus de 500 ambulances ci Sénégal c'est la première fois ci histoire politique du Sénégal dañuy recruter chaque année plus de 200 sages-femmes d'État yo xam ci al al bi mo leen tax duñ ci affecter kenn dans les communes donc loolu Idrissa Seck su ñëwé nako wax bokut ak nak Tamba ak Kédougou lañ fa def comme zone bi mu nekk lañ koy wax lafa fa Macky def ci li ñu xam ñun te bokkut ak li ñu xamul de Salémata ba Kédougou 65 kilomètres Macky Sall moo ko def Sédhiou ba yàlla sàkkee Sédhiou ba tey ci buuru Macky Sall la ñu gisee tëli bu ñuul docteur Cheikh dem na fa jamono yee def visite de chantier ci PSE te Sédhiou maanaam bâtiment bu baax état masu faa taxawal sax benn néegu sëngal donc loolu président daf ko def kon mag euh, Idrissa. alors moom tey mu ngi woo su goree su goree dafa war dafa war a wax euh, ci loolu. Assane Idrissa mu ngi woo Macky Sall débat public pour ñu jàkkaarloo ñoom ñaar. loolu yàkkamtee bëre rek la saa bu ñu bëree ñu daan ko ñun naxaar ba élection ñëw mu woote ci débat public te débat public boobu su ci wootee du Macky Sall moo koy wuy gis nga ni ma maîtriser la Macky Sall def dans le sud. man rek ku ma booleeg Idrissa Seck ma ma neutraliser ko ci débat public parce que moom lan la fi def idrisa ñun dañ koy laaj lan la fi def lu dul xotti wor may Touba moom moo ko njëkk a def ndax moo njëkk a taxaw ci ci ci ci télé ñu sëtu sëñ Touba fu mu mën a nekk dinañ ko jëli bala xew-xew ca ak yeneen ak yeneen moom lan mooy bilan loolu lañ koy laaj. bu ñuy wax Idi euh, Thiès moom gis nga ba léegi kenn lu ko fee daan parce que boo xoolee santé de Thiès Thiès waaye yi <clears throat> toujours rek dañuy dellu ci ginnaaw ne ñoom Idrissa lañ àndal parce que liñ Idrissa def Thiès euh, Macky Sall defu ko. xam nga Idrissa deful dara Thiès Ablaye Wade moo defar Thiès jaare ko nag ci loxo a Seck loolu dañ ko ci sant di ko ci gërëm parce que nit. su nit defee lu baax jaare ko parce que yàlla du wàcc defaral kenn saa bu defee am na sabab bu mu ko jaarale mais nag la ab Ablaye Wade defaroon tey entretien amu ci soo jëlee boulevard lycée Malick Sy bi mais roose garab sax ñi mu fi bàyyi maire yi mu fi bàyyi mënuñoo roose garab yi sax garabu 4444 yëpp yàqu na espace public yëpp yàqu na léegi nag li état moomal boppam ci chantier yooyu état àggale na ko mooy auditorium bi extension université de Thiès nouvelle sapeur pompier bi sooy dem kër Modou Ndiaye ISEP ISEP bu Thiès ak euh, kii nga xam ni ñu ngi ko ñu ngi ko def fii ni koy waxatee les seize kilomètres euh, Promoville avec éclairage public assainissement ah Thiès li fi jot a set ci sunu nguur lañ ko setalee ñun ñoo daan tonni ñooy tonni mbalit mi ak UDE ah loolu ñun ñoo ko fi def tey jii Transrail am na am na am na dénouement de crise parce que daje nañu ak ak ministre bi ci fan yu fan nii nii nii satisfaction bu maga mag am na ci dama maîtriser gul dossier bi totalement mais fim mu demal nga gis Mambay Tunkara. mooy Dakar ko fere Dakar Bamako Ferroviaire dañ koy relancer commandé nañu ay machine yu bees ci wara joge Indonésie ñew lolu avancement la bo xamni mom lamu rayon Macky Sall koy alors Assane li nga xam rek mom moy wajeel 2019 Macky Sall nee premier tour le bëgg euh, yéen na ngeen wacc ci terrain bi euh, waajtaay yoy fan ngeen ci toll. wàccaay ci la ñu nekk on est en train de s'organiser xam nga mbir soo déggee fan yi ñu de ñu agité débat wu coordonnateur dañu bëgg kàngam yi wàcc si suñu suñ ko agité rek ñi bëgg dinañu feeñ su feeñee nag ñu mën a daje waxtaan ni kat diw demal côté bii diw demal côté bii diw demal côté bii donc dafa laajaat réorganisation loolu ñu ngi ci ni ñu defee réorganisation au niveau du parti Non le les mouvements de soutien di defee une réorganisation pour que après ñu d'ailleurs force bi force de frappe bi mën am doole loolu nak yalla dinañu sutural ba dinañ ko dinañ ko accomplir avec responsable yi nga xamni bari nañu euh, ki nak bari nañu xadal trop ñom ñep nak mais bëgg rek mo le bëgg président am ndam rek mo leen yóbbu ci xëccio bi mais du pour affaiblir le parti wala xex kenn so gisé agitation yépp ku nek naan man la man la dañoo bëgg saabu bu ndam di am ñu tudd leen ci donc loolu dong moo tax ñuy agité wu mais du leneen. voilà Assane lan mooy doon kàddu yu mujj yi. kàddu gu mujj gi mooy sant tous responsable di parti mais aussi lii ñu leen wax du dictature du dara nañu bàyyi Abdou mbaw mu coordonner la commune de Thiès. la commune de Thiès man je ne suis pas un élément de Abdou Mbow wutaluma xëy mosuma jox fukki junni sax yi bokk ndey ak baay mais nag lii dama kaa sos te fi ñu jëm muy wutal Macky Sall deuxième mandat intérêt crypto personnel yi dañ koy teg fële ci ginnaaw jiitale intérêt benn mbër muy Macky Sall ndax moom moo war a jàkkaarloog peuple bi si quelque mois élection présidentielle beaucoup d'élections élection locale c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple nit kooku c'est le président Macky Sall ce peuple c'est le Sénégal nañu ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéey man nag rafet naa ci ci deuxième mandat bi ndax Abdoulaye Wade ba ci période bi, man bokkoon naa ci ñiy taal pono ndax ñàkkum courant ak wut ay groupe ren jii nag ñu ngi toll ci di jëmaat Macky Sall war a am deuxième mandat mu indil ma centrale à solaire fii ci Malicounda indil ma centrale à solaire ca Mérina ndaxaar indil ma euh, centrale à solaire ca Taïba Ndiaye indil ma centrale à solaire ca Sendou te loolu yëpp soo xoolee ci biir région de Thiès la nekk te région de Thiès moo déclenché woon processus émeute de l' électricité kon maa ngi ñaan aussi par cette occasion regroupement tailleur yi nga xam ne ñun man ci laa bokkoon ñu déclenché woon émeute yooyu war nañu nag suñu goree dajaloo féliciter le président de la république ci lii nga xam ni courant bu am la doy te yomb. mbokki xariñ loolu c'est suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu doon dalal Assane Mbaye bokk ci COJER bu euh, Thiès Ouest di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah.